ci ay anam ndax tey jii yow la yàlla dogal nga nekk tey ci sunu kanam te loolu ñu nangul ko yàlla amuñu ci benn ñaari xel ndax yàlla moo ko waxal boppam mu ni ku taxaw man yàlla maa la samp te doo daanu mukk incha allahu man maa lay jox bu nangu jote it man maay nangu moom yàlla moo wax loolu yàlla nag lépp lu mu def ci dogalam ne yàlla lépp loo xam ni def na ko ci dogalam mënuñu lu dul wàcce suñu bopp rek nangul ko ko te daal di def lañu def ànd ca te yàlla tey ñaan nag yàlla saxal loola mu def mi ngi lay ndokkeel encore ci biir ci julli gi ñu génn ndokkeel la it ci koor gi ñu génn ne yàlla nañ ko fekkewaat ay at yu bare ne ak mu ñëw yal na dàq morom ba amin ci wàll yëpp wàllu jàmm wàllu sutura wàllu juboo wàllu bennoo ci sa kay nee na yal ko yàlla def ci sa ay jiboo dëppoo bennoo développement yéene yooyu nga xam ni am nga ko réew mi am ko ba jiital la yàlla na yàlla dajale ak loola waaw nee na dañuy wax ni nit bu yanoo sa lépp waaw waaw nit bu yanoo sa say danga koy ñaanal yàlla ni ko yàlla boo daanu ndax bu daanoo la nga amoon lépp dana xajam ndax moo la yanu loon daanu nag yàlla na yem ci tur bi rek yàlla bu mu am ni mu ko waxee ni yàlla na ci tur bi rek te yàlla bu mu am ñi ngi dégg ci sa teewaay fii ci kër gii xam nañ ni yow xam nga ndax danga nekk ci organisation bu bees nekk ci kanamu réew mi fa tabaarakallahu yàlla na la yàlla saxal jàppale la jàppale la yàlla na la yàlla ommatal boppam amin yàlla na yàlla di sa guide yóbbu la ba nga atteindre sa objectif yaag sa gouvernement yàlla na la ko yàlla defal amin boole koog nag jàmm ak wér yal na yàlla dolli sutura amin nga ñëw fii tey di yëgle lii moom yëg la yëg nag yëg rekk a koy fay ne wax dëgg yàlla kontaan nañu bi nga ñëwee fii muy suñu sag boo amee kilifa mu bàyyi léppam gannaaw boole ca la muy dox boole la ca loolu sant yàlla la ne sant kilifa gi itam bi nga xam ne moo law ca boole ne mi ngi ñaan daal réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm amin wala boog sax yàlla na fi yàlla dolli jàmm amin ne ndax bu fi jàmm amul woon jataay yi duñ ko mën a def dëgg te yàlla na yàlla jubale leen ñoom ndax loo yëkkati teg ci seen loxo ñu war koo sellal yàlla na leen yàlla jàppale ba loola sell defaru yàlla na ko yàlla def lépp ànd ak dund ak wér réew mi nag ku ne xam nga ni ci réew yi gën a néew doole ci la bokk muy su développement waaye nag ak lu réew mi nekk su développement su développement ku yàlla jàppale nga dem yàlla nañu yàlla boole jàppale jàppale la ñaan yépp nag ci ñun rek lay dellu siwaat ndax dañu wax ni ku am problème jël avocat mu dina layal nga di ko nga di ko ñaanal ñaanaloo ko waaw waaw booy ñaanal sa avocat pour bëgg mu gañe ñaanal a toog waaye sa bopp ngay ñaanal yow mi muy layal sa bopp ngay ñaanal ne daal président sa papa nee na yàlla na yàlla nangu ñaan yëpp yàlla na nangu ñaan yëpp yaa ngi ci réew moo xam ni nag réew mu ñu dëgër lañu ñu waaw waaw ñu seen xel waaw seen xel dafa ëpp seen kàttan ni ñuy xalaate xalaat bu sore lay doon waaye daal ak loolu yëpp yal na leen ci yàlla jàppale lépp lu ñuy yëkkati fu ñu ko jëmee ñooñu mën nañ ko bañ a yëg waaye dara jógul te yàlla yëgu ko lépp yàlla yëg na ko waaw waaw lu jóg rek yàlla yëg na ko ne daal monsieur le président sëriñ bi xalif bi nee mi ngi kontaan lool nag ne daal dëgg-dëgg kontaan na mi ngi lay sant bu baax ne ci turu njabootu maam Cheikh Hadj yëpp ne ni ko téye loxoom ni nga ko tege ci loxoom ci nuyoo yooyu moom it mi ngi nangu lu nga xam ni yaa ngi ko teg ci loxoom nga teeru gan gu fi ñëw rawatina nag ku mel ni ki yow ñu ngi lay ñaanal yàlla bés bi nga jëlee fonction balaa dellu lu fi jëfe woon yàlla na yomb amit skay skay yàlla na ko yàlla def waaw ne anniv lu ñuy tudde anniversaire bala ñu naan anniversaire sax est neena daal bés bi nga jëlee sa fonction bala nga naan anniversaire bés bay dellu siwaat lépp lu jafe woon yàlla na leen yomb yàlla na ko yàlla def amin jërëjëf nee na mi ngi lay sant di la gërëm di gërëm délégation bi nga àndal tabaarakallah nee daal délégation bi nga àndal ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm ne tànk yi nga dox yal na ko yàlla nangu amin yal na ko yàlla def tànku barke yal na ko yàlla def tànk yoo xam ni lépp def ci ubbi ko amin lépp def ciy defaroo alhamdulilah ne tey jii kër yi nga dugg yëpp fondement ba mooy jaamu yàlla yàlla lu nit di def war na ko cee boole su ko ci boolewul loola du sotti te loolu kat yàlla daf ko wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi dafa am benn bu ñëw ci moom di am lu ñu ko laaj laaju kon di ko jéem a ca laaj ga yàlla tontu ko gannaaw bu mu déggee tontu ni su ëllëgee dinaa leen tontu ci ëllëg sa rasulullah sallallahu amul benn tontu bu jógee ca yàlla ne tegale na ko ay fan ba ñëpp di ko reetaan mu xaw ca am kersa yàlla ni ko nag bul jaaxle duma la bàyyi fekkoon naa la ci man fekkoon naa la ci lu gën a metti li fuuf ci ay difficulté ngay doom joo xam ni sa baay dem sa ndey dem nga nekk cundum te ñi nga nekk ñëpp doon la xeex ma taxaw la te continuer it di la taxaw ba yowmal qiyaam continuer di la taxaw ba nga àgg fi nga bëgg yow itam yàlla na la ko yàlla defal président daal sa waajur mi ngi lay ñaanal yàlla lépp loo xam ni mébét nga ko ci réew mi yàgg gouvernement bi nga àndal yàlla na la ci yàlla jàppale yàlla na ko yàlla def jàmm ji daal am na yàlla na ko yàlla yokk te saxal ko yàlla na ko yàlla yaatal itam képp koo xam ne yaa ngi dëkke ci réew mi ba ci sous région bi ñi ñu dëkkaaleel ñoom ñëpp yal na leen yàlla sedd ci jàmm jooju ndax jàmm waaw bu defee tâche diir waaw ñëpp mën nañ ko jëriñoo kon yal na ko yàlla def bi jaay rasulullah sallallahu mooy sonn nga te yow fi mu toll lii dafay gën a metti rek amatuloo benn instant boo war a noppaloo mënatu la nekk déedéet parce que boo xëyee yaa ngi ci dossier yi bala ngaa tëdd yaa ngi ci dossier yi bala ngaa yendu yaa ngi ci rencontre yi di dajeeg ñi nga war a dajeel ndax àdduna ku ca amee cër bi nga amee dootoo moom sa bopp à cent pour cent dootoo moom sa bopp dootoo nelaw ne fa la di jóge fu nekk li nit di jóge fu nekk la kayit di jóge nga war a bind war a liir war a signer valider lépp loo xam ni dafay dox te lépp nag di tegu ci sa kaw ne président daal yàlla na la ne daal nga yëg ni rëy na ci ñoom lool waaye ñu ngi sant suñu boroom ne Serigne Cheikh mi toog ne daal nga yëg ni fii ñu toog mu toog fekk ñii mu fi toogal njaboot yëpp a fi ne ñi ci ëpp moom mi toog ak Serigne Cheikh mi toog daanaka ñoom ñii ñooy sunu baay ne ñoom ñi amuñ ci rakk ay doom lañ ci am kon ñoom it am nañu responsabilité fexe ba ñoom ñun ñëpp ñu jubal waaye yaakaar nañu ni dana yomb ne fekk ndax loolu fekkoon na muy suñu xalaat ñu di ko doxal di ko waxtaane di ko jéem incha allahu ñi ngi ci gannaaw dogal yàlla ne daal li yàlla def ci yow ñu ngi ànd ak dogalu yàlla boobu di ko nangu bu ci amit benn jaaxle ci seen wàll ne fii ne fii këru diine la ku nangu këru diine la ku nanguwul it këru la ñi ngi ñaan yàlla diine jooju yàlla na ci yàlla saxal ndax maam Cheikh Alhaaj Malick radiallahu taala anhu dafa ñaan yàlla ni ko yàlla may ma ma dund waaye ma dund ci diine Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam ñi cay dem ni koy ñi koy itam nga may ma sama xol bii amoon naa sëriñ sëriñ boobu sama xol di këram muy Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu taala anhu lépp nag ci sunna rek la teral sa gan nag yonent bi sallallahu moo ñu ko sant conditionné ko ku gëm yàlla te gëm ga di dëgg na nga teral sa gan ku gëm yàlla te gëm ga di dëgg boo dee wax na nga wax dëgg te daal di li ci des yëpp nga noppi ko te nga wax dëgg te muy lu rafet waxal yiw waxal jàmm wax ak sutura yàlla yàlla dolli sutura yàlla yàlla dolli sutura ne am na ñoo xam ne nag suñu njaboot lañu waa Ibou Ndoye mii yoroon rajo bii nii waaw moom nekkoon mu nekkoon RTS bare na ku ñëwoon RTS tey jii foofu moo ko fekk mu yàgg fa lool amee na benn jikko rek di ko doxal yaru na teey na am na sutura yàlla na ko ci yàlla saxal amin yàlla na ko ci yàlla saxal amin yàlla yokk fanam ne yow président yàlla yàlla yokk sa fan yaa ngi la yàlla booleel nga nga ànd ak ñoom tey ñëpp yàlla yàlla guddal seen fan yàlla na leen yàlla protéger boppam yàlla yàlla nekk seen protecteur yàlla aar ñu ñun ñëpp ne loolu daal ku nekk soxla nga ko ku nekk soxla nga loolu yàlla nañ ko yàlla defal ci barke yonent bi sallallahu alayhi président nee na daal bëggoon na mu gën a gudd waaye foofu rek lañu ñu mën a yem li ci des dañ lay bàyyi nga jéem a wàññeeku ci jàmm incha allah dellu dallu tuuti waaye nag li ci sa kanam daal bare na li ci sa kanam bare na yàlla bi ci mën dara yàlla ci yàlla dugal loxoom amin ba lépp jaar yoon amin amin yàlla bu sa yaakaar tas yàlla bu yaakaaru nit ñi tas ci yow yàlla ci yàlla jàpp ba lépp jëm ci kanam yàlla nañ ko yàlla defal waaw waaw waaw ziar général bi nga doon wax ziar général boobu noonu ni nga ko waxee noonu lañ ko soxlaa ndax fu mbooloo di daje ci jamono bii am na benn parlement bu ci nekk point noir bu ci nekk boo xam ni bokk ca waaye nag foog mu dugg ca ndax àdduna moo tëdde noonu kon nag la cay xew ne loolu kon sa loxo nga ca biir ni nga ko waxe ndax nag ci sa kër lay xewe luy xew ci sa kër nag boroom kër gi war na ca veiller wax ca addu ci ba mu bañ a tas kër gi ami waaw waaw nee daal yàlla la ci yàlla boole jàppale yàlla nañ ko yàlla boole jàpp nee daal mu ngi nuyu ñi nga àndal ñëpp nee ñi ngi leen di ndokkeel ci julli gi di ñaan ne daal mi ngi ñaan yàlla ñëpp yàlla leen yàlla dimbale ba ñu reconnaître seen kilifteef ci yow ndax nag yow defoo ko yàllaa ko def loolu itam lu logique la lu logique la ñoom ñëpp ànd liggéey toujours liggéey Ablaye Wade mas na ko fi wax il faut travailler toujours travail, encore travail, bien travail, beaucoup travail. Ah, beaucoup travail. waaw <laughs> ah, amiin nee ñi nga àndal itam yàlla yàlla jàppale ba ñu mën a def loolu def seen xel ci liggéey réew mi daal soxla na ko waa réew mi réewu sutura la réewu sutura la yàllaa ko def doore ko nag ca mag ñi léegi la àdduna soppiku nii rek waaye àdduna yàgg na soppiku ak lu ci mënti xew léegi <laughs> moom daal tabaarakallaahu mi ngi wax ni daal réew mi daal réewu sutura la fu nit teg tànkam wallahi jaam bu baax sujjóotal na fa yàlla neeta sujjóot mooy soumission totale ci sa borom looloo tax yàlla bëgg ko waaw te nee na am nga yooloo wax yàlla nee président daal wax baa ngi bare te nag kuy wax war nga xalaat ki ngay waxal waaw waaw fi mu jaar ba agsi ngeen di wax coono am na nee daal du la téye la yàlla jàppale xam na ni sonn nga yal na la yàlla jàppale yal na la yàlla jàppale yàlla dolli sutura amin yàlla yàlla dolli sutura lu fi jëfu rek yàlla na la ko yàlla yombalal nga yërëm jaam ñi yërëm ñëpp surtout ñu ànd ak yow nga yërëm leen koo ci mën dimbale dimbale ko loo ko mën dimbalee loo xam ni doo ca loroo nga defal ko ko defal ko sa bopp yàlla dafa wax ni l'humanité loolu njabootu yàlla lañu la ca yàlla di tànn mooy ka ëpp njëriñ ci nit ñi alxalqu kulluhum iyaalullah ahabu min allahi anfauhum lilciyaali président daal nañ daal di ñaan yàlla rek yeewi la nee nga delluwaat ci leneen ne te yow sa yëf jeexagul sa journée jeexagul déedéet jeexagul yaa ngi soog a commencé sax <laughs> waaye sëriñ bi président dafa waxoon ni soo ñëwee mu barkeelu jox la symbole kaamil bii kaamil bii nag boo gisee mu jox la ko roi bi moo ko yónnee ñu jëloon ko Euh, jël mbalaan mi nga xam ni moom lañuy ñu defee kaaba gi mu defe ko ko ni woon daf koy barkeelu jox ko sëriñ bi mu nekk souvenir am bi nga ñëwee nag sëriñ bi ni kii daal souveniru Màkka la woon ci moom waaye yow la koy jox ndax gis na ne bi ngay jàng alquran mu bëgg ci lool jaaxal nee lenn rek moo ko ci jaaxal nee waaw nee na fay rek moo ko ci jaaxal nee daal fay ji moo ko ci jaaxal ak tin ji naa ba yaa ngi dégg ak njaayeen waaw baax na ngor lé- lé- lé- léegi itam dafa waxoon ni bii itam mi ngi jóge ci màkk moom itam ci rawdu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ ko joxe woon siyaade bii mu ni bii itam mi ngi la koy jox comme cadeau amin nee na kii itam uut la booy julli bay naafi la bay weer di dóor yi ngay dóor nee na nga tuuroo ko bu ko ci fàtte ci ñaan eh, bii nag maamam Seydi Hadj Malick moo ko bind mooy diwaan bi nga xam ne lépp lu Alaaji wax ci li ñu mën a génne mi ngi fii yi ñu génneewul moo ëpp waaye yii lañu jot a génne mu ni kii mu jox la ko comme cadeau boo demee nga lii ko xool li sama maam Seydi Hadj Malick nga ñëw nag ci bés bu leer muy altine ku ne xam na altine li ci xew yëpp te hasard amu ko xamoo ko woon xamuñu ko woon kon ci altine jooju nga ñëw te tàllal yàgg ñi nga àndal ak ñi nga bàyyi gannaaw mu ñaanal la yàlla mission bi nga xam ne yàlla gàll na la yàlla defal la ci lu ëpp sa yaakaar bokk yi ñëpp tàllal xalifa bi ñaanal président ñu wax amin amin amin